membai mbay nami nañ dem garaawul am naa mu solo nañ dem nga di bagaar nii mooy loolu waaw ah, la la luy sa problème ak seexu na eh, son bu seew naa neen son moo la yóon mais yow instant waa nga amoon problème de punkal ah, mi mbay jël nga avance boobu yàkkale de kii lu mu de ku na mi du jël avance fii boo fi tegee sa tànk ma rey naa li ma la wax dafa leer. li ma la wax dafa leer te boo mu waxaat yi bëgg la man nokk la ba nga dund. ba àtte leen kii waay. ah Cheikh naa Cheikh naa. non nu ma Cheikh naa fii ko la baaxul. Cheikh naa Ah. barki Serigne Bamba waaw oui ma ah, mam Ndiaye Sabo bu jëndul ci sama lii. waaw wala mami Cobra jënd ci. Ah. barki Serigne Saliou Ndiaye. yaa ma ñëpp maanaam dinañ wax ba seen gémmiñ ñu xotti jaar. te nii maanaam démonstration yi muy def maanaam noo tourné da lay toog. xaadu maa yaa mën noo tourné xam nga na kala mën. ah yaa eh, eh. eh, yéen daal kon yéen fii ngeen yéen yo! eh eh mais yow kii woo ñu nii. Oh, mais mais mais mais Mbaye mënoo sérieux mais boo nekkee fekk nit ay nit ñu liggéey da ngay da ngay xam ne dañuy liggéey. dana ngeen liggéey. non non booy déglu ma booy jël say vidéo da ngay xam ni nga ko jëlee mais yaa ngi fekk ay nit ñi la mooy des choses xanaa nga correct <laughs> ah? non non nit da ngay def. yéen yéen yéen taxaw taxaw yéen yéen yéen a wax war a wax kii dëgg. non non amul yéen a war a wax kii dëgg nit boo fekkee <laughs> ay nit ñuy vidéo da ngay da ngay correct. nga nekk nit da nga ñoo fekk. mais mais taxawal taxawal yéen yéen a war a wax. non non lan lañ koy wax ci dëgg waa yéen yéen yow nga naan ay kii mooy seen directeur yow yow yow dégg ah. kii lépp lu mu wax ci réew mi moom moo ko def ah parce que lu ne faan kenn du ko jeex yow yaa war nekk nit boo fekkee nit ay nekk seen liggéey da ngay comporté comporté bu rafet mais mais dama ah man dama ah dama dama non non dama dama nan kii kii keroog moo nekkoon si auto bi si Tivaouane xaw ma gàmmu màggal gi non non loolu loolu sa yoon loolu sa yoon néew dama bëgg dama bëgg nit nit su nekkee si yoon ak ngeen koy wax dëgg parce que moom rek moom kenn yow rek ñoo fekk ci liggéey actuellement kon bu ñëw du ñu ruube boo dikkee fekk ñuy liggéey may ñu tuuti ñun bañ liggéey ba a wax mën nga ko wax mais boo ñëwee fekk ñuy liggéey dama dul man lu may wax lu ma wax li may wax ak lu ma waxul sa yoon néew ci li may wax ak li may waxul yëpp sa yoon sa yoon néew ah. nit da ngay maandu yaa may dégg. Ah. nit da ngay ah. mais yow li sa yow léegi yow li sa problème yow. Hmm? non non daxal. non non yow léegi waaw waaw man kii waxuma ak yow de. non non léegi li sa problème yow waxuma ak yow yow téléphone nga yor ngay nekk di taal sa vidéo yow téléphone nga yor di ko si def loolu la man sama nekk mais waa léegi yow yow loo yor di di ma si def loolu si yoon. non non taxawal déedéet dama ni dama ko fekk fii taxal ma dama ko fekk fii ah muy sitam léegi dama ni ko wax leen ko dëgg parce que parce que comprendre nga kii kii dama ni kii yoon na su ma koy defal émission ah ah defal ma ko émission dama ko romb dama ko non non léegi yow non non yow léegi yow man su may def samay vidéo yow lu ci sa yoon yow lu ci sa yoon non non sama xam nga la dama dama bëgg ngeen wax kii dëgg loolu laa wax loolu laa wax non non yow keroog yow ci téléphone rek nga war a yem ah yor ambulance naan ay maa mën ak maa kii wa kii di ko dofloo keroog eh, eh. léegi kii de yow leer na ma ne yaa yoroon téléphone bi yow leer na ma ne yow yaa yoroon téléphone bi. mas ambla mas ambla ma am xaalis mas ambla moo yoon. ma avant ma xaalis fa la jógee dara pare am na droit. kon oh, lii loolu non non man kii yéen yéen ay da ngeen la ngaamu. yéen ay da ngeen la ngaamu man kii doon la ngaamu laa. kii mooy waaw léegi ma léegi ñun may ñu fii dañuy liggéey. <laughs> waaw baax na léegi léegi man kii laa wax ak yow. non non kii amul looy wax ak moom yow boo amee looy wax ak moom mën ngay waxal. waaw yow non non kii. Eh, non non boo amee looy wax kii mën ngay wax ak boo amee looy wax. man waxuma ak yow de man waxuma ak yow da ngay la ngaamu rek. da ngay langaamu rek dé waaw waaw léegi léegi léegi damay wax léegi damay wax ak moom waaye yow <laughs> eh, eh ñu dem yow ah, ah ñu dem <laughs> waaye kii day langaamu rek waaye yow dama ne kii da ngeen ko war wax dëgg keroog ambulance bi loolu du dëgg du yoon barki Rasulullah keroog ambulance Touba la dem Touba la dem yor ambulance am gars yi ko yaa mën yaa ëpp doole yaa mën yaa ëpp doole waaw yow du ngeen ko wax dëgg. léegi yow loolu kii yorul kii eh, xam nga kan xeexal. ki nekk fee. seexu naa la ñuy xeexal barki Rasulullah kooku woo leen mën fuuf kooku antuwaat moo nekk si ginnaawam barki Rasulullah kenn mënu lu ko tus ah, loolu ngeen di 42 millions 42 ay jaaxa yow yow wër yow ale kii fu lu amee jaay ko téléphone a am loolu da ngeen wax kii dëgg mais mais léegi man li waaw maanaam motard bi ma yóbbu Touba. waaw mbay mbay. loolu du dëgg du yoon kii seen influence kooku. non non barki état moo nekk si ginnaawam barki Serigne Touba da leen di dóor ba ngeen bëgg a dee. kooku leen mën moo leen ëpp doole barki état moo nekk si ginnaawam. Ah, état moo nekk si ginnaawam baax na. mais mais déedéet fii wuy ma. nan laa soxla yow demal yow. ay bu soxor la yow soxor la. waaw yow demal yow demal. yow soxor la. mooy sama yow looy fekkee ñuy vidéo xanaa booy ruubee sax. fii la taxaw xoolal fii la taxaw keroog bi iPhone 14 bi jeexee commencé iPhone 15 bi mu génnee mu taxaw naan day wanteer ma dem si seexu naa seexu naa ne ku képp ku ko wax du dëgg. barki rusu la école c'est que adduna soo si nekkee da la loolu tolluwaayam la ah. gis nga coow li nu bari bari bari bi 15 bi génnee ku dul mën daggoo bi dem wuti ko du dëgg moo moo waat ci alxuraan moo waat ci sëriñam barki sëriñam ku dul mën indiwul 15 naa moo waat ci ak iPhone 15 bi bi coow li bare ku dul man andiwoo ko fii. barki seexu naa neen loolu du dëgg barki jour boobu la wax. seexu naa de ku ne xam na ne passeport am ñaari tampon ci eh. ñaari yoon ñaari yoon la ma sa génn dëkk bi. man ñaari passeport laa feesal. yaa ngi tooñ de téléphone. état wu nekk si ginnaawam de. samay emploi yi de ah. ñu ah, ay monté la moom bi mu jëlee bi ñu jàppee alkaati moom dañ ko waroon jàpp. déet taxawal kaay. bi ñu jàppee ah, alkaati bi moom dañ ko waroon jàpp yow bi jappé jàppee borom motaar bi yow dañ laa waroon jàpp parce que yow bàyyi ma tontu la jaay ko si téléphone rek la waro yëg si motar ni ñu di yow mais bu yow da may laaj bàyyi ma gis nga jaay ko gis nga jaay téléphone bi manam ñewul ben patron de presse ay emploi lañ yor may jeune entrepreneur di créer ay emploi ci réew mi comme ñep kon amna lo xamanteni man sama yónnee ko du dëgg benen bi ak ku mën doon fi ku ma fi ñëk andil iPhone 15 waxo dëgg non non barki Serigne Bamba fii eh, ñu fi eh, ana vidéo yi naan a daggal leen ko ba coow lu bari li yëpp ñaari ñaari tampon seen passeport amul kenn koñ de Cheikhouna li muy jóg si place am bëriwul de Cheikhouna li am na ñeenti place am na ñeenti place yoo xamante ne ma fekk damay jaay a fekk allez taxawal wax a gis nga place am lu mel kii lañ ko fay. kii xam nga lan nga bëgg a fay man foo ko fay ma. bu dee bu dee dañ laa fay. Ah, ah. wax ji rek ñun ñu jàppale la loolu méttiwul. aywa ah kii bu dee dañ laa fay. Ah, wax ma rek ñu expliqué la. waaye man laa expliqué yor ma ne soxla ma dërëm. parce que ñun xam nañu yow kay waaw yow yow saa yi waxuma ak yow de saa yi waxuma ak yow. non ci suuf de wax ma ma ma dem man barki Rasulaay man kii damay waxtaan ak moom. yow wéeroo amoo lay wax ak yow kenn amul lu may wax ak yow yow damay waxtaan ak moom yow yaa wéeru non damay waxtaan ak moom yow duñ la mën a fay jaru barki Sëriñ Bamba man fay ñu ma de fay maa ko ëpp xaalis fay ñu ma maa ko dàq liggéey. fay ñu maa ko bagage maa ko ëpp emploi yi may fay. Mm. nga di nga di sa employé nga jëndal oto. adduna sooy wax da ngay wax sa digg ak laay dama dama dépassé samay emploi xam nga kan laa jëndal oto. sama <laughs> jabar. dégg la jabar ba pare 4 4 12 millions laa jëndal sama jabar. si téléphone kon nag waaw yow yow da ngay jaay ak baa ngi nii bu dëgg allez bàyyi bàyyi kii lii da koo mën a jënd si téléphone. waaw eh. eh. barki rusul eh. allez lii moom ko. lii jaakaar téléphone da ko mën a moom. mais lii moo tax kii sëñ téléphone da ko da a am lii. lii kañ lañ ko miite démb. barka alxuraan. lan lii kañ euh, le 18 10e mois sa jabar nu mu tudd du dem. sa jabar nu mu buso. sooy bu mu ngi leer na yoruma carte grise jàmbur de lu ma dawal maa ko sama alal laa yor. bon ay Antoine financé wu askan wi laa am te askan wi bu ma ko amee ñàkkuma dara parce que ndaw ñi mën lañ bëgg te lu ma wax ñu déglu ko bu dee dañ lay yónni wala leneen da ngay dem ci ña lay yónni yoruñu man damay liggéey yaa ngi ni nag maa bett teewul place la client oh. te barki Sëriñ Bamba boo bettoon ñoom bu ñu seen place amul client oh. am nañ bay fay wax di bàyyi jëf nañ ma ko wax man xam lu ma ñor li ngay def ni ñoruma li ma ñor mooy lépp loo xamante ni lu soxal askan wi la lépp loo xamante ni su ma ma ma maanaam du du ma wax day mel ni lamante wu mais li may wax man su ma koy wax maanaam jamono bi maanaam dama am sama mbokk ndaw bi nga xamante ne ku yaafus la ma soññ ko pour mu gën a gëm parce que amul dara koo xamante ni bés dama jox fukki dërëm man benn 25000 laa sama yaay ma ko jox ci ambulant laa ko tàmbalee maa ku ñuy wax arif ñoo daan andi kolobaan lañ démarré ci ay fëgg jaay jaay naa pièce machine jaay naa lu ne amul réew mu ma demul ci ambulant ci dëkk bi eh, eh, parce que moom mi ngi yàq gem parce que xam lan la yàqee gem bi non dafay yàq gem bi bilaay da ngay yàq gem bi. lan la yàqee gem bi non da ngay yàq gem bi parce que yow euh, man man loolu. fii bi nga def keroog. xam nga man ah. ama man non loolu couvent bi loolu leneen la loolu bu ci wax. Ah. mais am na ama man li ma gën a intéressé. Ah. mooy lépp loo xamante ni lu ma xam la loo xamante ni su ma ko joxee ndaw ñi ñoom ñi am opportunité mën a nekk ci seen bopp man loolu moo ma intéressé. mais du loo mais du loo xamante ni. da ngaa juma wax ngir ay polémique ngir nangam loolu man sama yoon nekk ci du ma ci wax. mais yow benn place nga am te euh, xaw ma Carrefour xaw ma am na ñeenti place dégg na kan moo am ñeenti balaas. billaahi seex na fan lañ ko am. Ah, non non dégg naa am na ko seen bokkut ba bés bu faar la yem. seen bokkut ba bés bu faar bii la yem. mais yéen yéen ñaar man man ñoom ñaar ah loolu mooy seen problème. ñetti place laa yor fii ci marché HLM. ñett bii da la am HLM 1. bii da laa la fekk bii da laa la fekk. am am bu bu bu bees bi te yëpp a ngi dox. bii bu bees la ñii ku ne am na ci oto. yow ma ci jënd jënd ma jëndal sama jabar. amuñu problème ak Cheikh barki Sëriñ Bamba xajuma ci benn jeune entrepreneur way laaj problème bi lan la ñoom ñaar. waaw waaw yéen ñaar seen problème lan la. déet mais yaa ñëw. imposé ñu fekk ñu ñuy liggéey nga ñëw imposé ñu li la saf. waaw kon boo dikkee war nga maanaam lan la est-ce que yónni wuñu la nañu waxante dëgg. non man kay yónni wu ma. mbay ni ngay waxee da ngay gëm waxi seexu naa ngay gëm iPhone 15 bi génn na. waaw fii amul kenn fi jëndoon ñëpp fii lañ ko ràngoo. kuloon ko da xam barke sëñ Tuubaa ñoom ñëpp jaay ko téléphone yi ko yëpp fii lañ ko ràngoo nu man angle ba angle maa dagg billet dem jëli ko ñëwaat direct lépp koy def vidéo yi live ngeen di gis direct ku dul man defoo amul a andi 4000 pièces du dëgg waaw mais bu ko dana ko fi teg saa seen passeport yi ñaari tampon ci ne nañ waxante dëgg ñaari passeport laa feesal yem ma ak ñoom damay liggéey seen kër bi ñuy nekk dañoo luyel seen ndey ak seen i man titre foncier laa yor ko moom liggéey laay def bu ngeen kii bul wax ak moom def la wéru nañ dem. waaw yow yow yow yow yow yow waaye yow yow yow yow. kii bul wax ak moom boobu nag bu di baax. waaw yow xanaa ci gàtt góoram la. allah akbar <laughs> allah akbar man de. kay sama yoon nekk si. yow moom moo place bi. yow moom moo place bi dafay langaabu rek. man damay dugg de. waaye man damay dugg de. Aliou ah. waaw <laughs> doo dégg. wàccal fii fii. mais yow lan lan sa problème. <laughs> waaw ah, baax na waaw ah, fii Grand Saay moom maa ko moom léegi lan nga bëgg. waaw ah, garaaw yow moomoo place bi. kon 15 gisoo. ah soo yëgoog seexu naa loolu garaaw na gis nga client yaay noonu ci biir mooy. defal eh.